Khadija Thiam membre Top Events 221 euh, tey nag mën nañoo wax ci lu bari su suñ euh, région bi di Kaolack parce que Kaolack dafa bokk ci région yi nga xam ne mën naa wax ni moo gën a pauvre te aussi ñoo gën a salte Kaolack gis nañ ne dafa salte ay canalisation amatul benn emploi bëgg nañu aussi kenn xamaguñ benn présidentiel moo war a jël réew mi mais dañ koo ñaan nu sommes des élèves dañ koo ñaan mu jàppale ñu jàppale waa Kaolack parce que Kaolack salte na trop bëri na yoo surtout élèves yi ñun élèves yi sonn nañ da toog sa classe di jàng par la nuit da ngay gis yooyu nii loolu yëpp salte bee ko waral gis nañ ñun président yi gëstuwuñ Kaolack benn yoon te gis nañ maire yi aussi gëstuwuñ Kaolack benn yoon ñun nous sommes à Medina Baye Medina lañu dëkk ci xolu Kaolack xam nga ñun dëkk bii dëkk Maolana Cheikh Ibrahima Niass la dañoo bëgg nag ñu jàppale waa Kaolack parce que nous sommes des jeunes dañoo bëgg defar dëkk bi aussi dimbale suñuy parent pour képp koo xam ne mooy doon présidentiel ñu nga xam ne ñoo posé candidat pour doon présidentiel ñoom ñëpp la ñu waxal képp ku jël réew mi nañu dimbale waa Kaolack surtout jeunes yi. université bu Kaolack moom kenn waxatu ko ba tey pareegul je suis un élève de terminal lu ma leer ba leen université wi xaajagul sa bay pare te dana yàlla dana def ñu am bac te université bi pare sa du ko def chaque jour ñu naan ñu ngi ci université bi ñu ngi benn yoon. tey jii ñoo moom suñuy carte ku ñu gis xam ne am nañ ay carte parce que ay élèves terminale lañ ñoo am am nañ droit ne votel ku ñu neex mais am nañ droit timit ne ku jël réew mi na defar suñ dëkk parce que ñoo ko moom Sénégal suñ Sénégal la su baaxee ñun ñëpp la baaxal su bonee aussi ñun ñëpp la bonal parce que Afrique Afrique lañ wax te Sénégal moo ci gën a pauvre mhm. xam loolu rek war nañ koo seen te yàlla xam na ne tey ñoom présidentiel ñu ngi jël seen doomi dugal ci ay privé ñun ay élèves publics lañ mhm. nañ ñu jàppale lii sa Valdiodio Ndiaye ku ko gis war ngaa jàppale élèves dëgg la élèves yëpp mënuñoo réussir kenn kenn xamul ñu ñëpp lu ñuy doone mais nañ jàppale élève yi bu ñu jàppale élève yi kese hôpitaux yi fépp nañ fa dugg defar Kaolack aussi parce que Kaolack salte na génn salte Kaolack mënoo am lieu public boo xam ne mun nga faa recevoir say nit gisuñ ko parce que Kaolack salte na trop